asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di def ni nga xamante ni noonu la Aliou Mamadou ja def ak Déthié ak Cheikh Tidiane ak candidat yëpp mooy yëkkati ay kàddu njaal daal di koy jébbal askanu senegal yëpp ci lu tiis li nga xamante ni xew na démb fële ci Ndar mu nekk loo xamante ni c'est loin d'être anecdotique mais c'est symptomatique lu lu lu sunu min la sunu géej yep ay sëg legi. bari na ñoo xamante ni dëj nañ seeni doom te xamuñu ndax ñoo ngi dund wala ñoo ngi dee tamit ci bilan Macky Sall la bok ci bilan démocratie Macky Sall la bok. parce que démocratie su mënta permettre ñu dundu dund gu mucc ayib démocratie amul njëriñ démocratie su mënta fexé ba ñu jàng jàng bu mucc ayib démocratie amul njëriñ démocratie bu fexee ba ñuy rey sunu étudiants yi ci université yi démocratie amul njëriñ démocratie bu fexee ba jigéen ñi continuer di am doom ci ay charrette di dund dans des conditions difficiles ndaw ñëpp réew mi yëpp sëngéem waaye démocratie bu fexee ba kaddu amatul benn valeur te ki ko waroon na njëkk a sàmm mooy le président de la république moom moo njëkk a daaneel kaddu te loolu jàpp naa ne lu tiis la ci réew mi lu métti la kon dañuy jaalee ñi nga xamante ni yëpp ñoo bokk askanu Sénégal ci naqar boobu nga xamante ni dal nañu di massawu tamit les soldats de l'information xam naa ne maa leen gën a jege moo tax maa gën a sensible ci seen situation ci conditions yu métti yi ngeen di liggéey très souvent mais di leen wax ne leen la gravité de leur jar na ko tenez bon bu leen kenn xoqatal bu leen nangu kenn jaar leen fenn liggéey bi ngeen war a def def leen ko ndax dafa war a am solo ci ñun liggéey bi nga xamante ni moom la ñu war a def et les témoins du 23 juin ñoo ngi ci ak de 2011 2012 Macky Sall nag keroog bi ma koy xool ci jam ñaajoo dama gis une volonté d'omniprésence qui a débouché sur un aveu d'impuissance gis na ko xamanteni dafa amone yene ndar kep lepp ndax amna kumu wax bes ne ko réew mi ci dictature la koy yoré waye nak xam naa ne dafa xamul réewum Sénégal jité na peuple bu mu réré té loolu mo waral li yépp tay té ñoñu nga xamanteni ni ko moy ñi nekkon ci nopp Léopold Sédar Senghor yi ne ko Sénégal bu ko bàyyi mukk toogal nekkal président à vie am na sax dégg naa Senghor wax ko ci gémmiñam mu ne am na député boo xamante ni du ma tudd turam ñëw na ne ko dama bëgg a dugal benn proposition de loi boo xam assemblée nationale da ngay nekk président à vie mu ne ko xel xalaatu ko mooy ñooñu nga xamante ni ni ko président Déthié doon wax léegi mënuñu am capacité fàtte seen bopp nga xamante ni li arab di wax ananiya muy égoïsme selfish moom moo leen sonal ba mënuñu fàdd seen bopp ñooñu nag dafa am ñu préserver seen ndono ñooñu ñoo taxawoon ci wetu Abdou Diouf ne ko bul bàyyi nguur gi mukk ak Abdoulaye Wade na la ko sa bakkan jëral jaral ba keroog bi Abdou Diouf di jël téléphone am di woo Abdoulaye am na ci ñoo xamante ni xaw nañu rey seen bopp ne ko bu ko def mukk ñooñu ñoo taxawoon tamit ne Abdoulaye wadd fexeel ba def troisième mandat dugal ko ci guuta buggu ko woon

on espère que sa prophétie quand l'idée de reporter les élections a traversé Abdoulaye Wade président Macky Sall s'il décide de reporter les élections on va le déloger du palais j'espère que sa prophétie ne se réalisera pas je l'espère j'en appelle à sa sagesse j'en appelle à la sagesse des membres du conseil constitutionnel nous ay médiateurs et ay régulateurs lañ ndaw ñi les sénégalais sont extrêmement fatigués sous nature démocratique nous baaxoo bu defee diir bi ñu yeesal ko am ñeneen ñoo xamante ni ñoom le Sénégal avec beaucoup d'énergie à ses patriotes à ses serviteurs pour sauver le pays maa ngi di Merci. On donne au dernier intervenant avant la de parlementaire, le premier président d'André Merci beaucoup. Euh, chers compatriotes, d'ici et de la diaspora, l'heure est grave. Aujourd'hui est un jour noir. Un jour noir, mais également un jour de fierté. Un jour noir parce que nos enfants sont également portés disparus dans les eaux sénégalaises. Donc, nous nous inclinons sur leur mémoire et présentons nos condoléances aux différentes familles, mais également aux sénégalais. L'autre jour, le, deuxième est un jour de fierté. Fierté parce qu'aujourd'hui, le Sénégal est debout comme un seul homme. Chacun de nous a oublié ses intérêts et c'est extrêmement important. Et il est important qu'on comprenne qu'il y a deux forces, ou, en tout cas deux groupes qui peuvent faire quitter le président Macky Sall avant, au plus tard le 2 avril. Et il faudrait que chacun le comprenne ainsi. Et rien ne s'oppose à ce qu'il parte le 2 avril parce que je reste convaincu que le Conseil constitutionnel va répéter ce qu'il avait dit en lui demandant d'organiser les élections avant le 2 avril. Les deux groupes sont les suivants. Le premier groupe est le Front populaire, qui a été créé autour de nous, qu'on appelle aujourd'hui le Front de résistance, qui a sa dignité et qui défend le Sénégal. Et le Sénégal aujourd'hui est uni. Et c'est ça le peuple. Et le peuple avec la démocratie, avec l'avenir du Sénégal. Le second groupe concerne les partenaires du Sénégal, je dirais les institutions internationales, pour leur dire de ne pas baisser les bras. On a besoin d'eux, ce groupe, ce groupe d'institutions internationales, parce que avec le président Macky Sall, il faut mettre la pression. ils ont les moyens financiers, ils ont le pouvoir pour venir nous accompagner et le faire partir. Enfin, leur dire que nous sommes en train de réécrire notre histoire. Un, le prochain président du Sénégal est, derrière, dans ce groupe-là, parmi nous. Et nous retiendrons ceux qui ont été là quand le pays avait besoin d'eux. Et euh, toute autre, institution, qui ne sera pas là pendant cette période de crise sera un ennemi du Sénégal. Et l'histoire le retiendra. Et surtout que rien ne se pose pour que l'élection présidentielle soit réalisé avant et pour que le président parte le 2 avril. Les, juristes l'ont dit, ils l'ont répété. Donc, président Macky Sall, nous vous demandons de grâce. Vous avez reçu le pays, vous avez été président en 2012 avec les honneurs, avec la paix. Nous vous demandons de, de remettre ce pays aux ayants droit avec la paix. Mboki, li may ñaan mooy bi ma jaalee ñi nga xam ne tey ñàkk nañ seen bakkan ba pare mooy xale yi faatuwaat ci géej mu la gën a metti encore ndax bis bu ne loolu mu ngi am ma wax ne Sénégal toll nañ fu nga xamee ne doy na waar ndax lan ku toog ci nguur gi nga ne du fi jóge alors que moom bi muy jël nguur gi daf koy jël ak jàmm ak salaam en ngir yàlla dañ koy ñaan mu joxe réew mi avant le 2 avril ci jàmm ak salaam. ndax mënul xeex ak un peuple et aujourd'hui le peuple mu ngi nii askan waa ngi nii suñu ginnaaw le vrai peuple uni ñoom bëgguñu lu dul Sénégal am jàmm démocratie bi sax fii te loolu mën na nekk parce que conseil constitutionnel bi nga xamee ne moo wax ne élection yi dañ ko def ci délai dina compte di deux moom xam naa ne dinañu wax parce que saisir nañ ko dina wax ne élection yi na am avant le 2 pour que président Macky Sall amul ñu réew mi avant le 2 avril amul dara lu mu mën a teg lu war ne mënut nekk c'est très possible ndax ñi nga xamé né ñom ñom match seen xel match ci yoon xam nañ ko wax nañ ko yalla nañu yalla may xel mu am xel mo xamé né li faatu ci xalé yi ci geej gi ñu leen di jàllee encore du fi ramat may wo également ñi nga xamé né moy suñu natango yi nga xamee ne ñoo dëkk nekk Sénégal di ñu jappalé mané leen jamono jii dañoo soxla ñom ici ñu baña bay bàyyi seen loxo ndax Sénégal tey benn bopp la mu ngi ni suñu ginnaaw te ñu xamé né kii jiite réew mi ëllëg ci ñun ñi la du doon kenn képp ko nga xamee ne jamono ñi dimbali nga ñu ba li fi nekk dem ci jàmm ak salaam duñ ko fàtte képp koo xamee ne dimbaluwuñu ba li fi nekk problème am di jàpp nañ na ci ñi ko jàppale te bu subaa ñun ak yow am lu ñuy séq donc loolu mooy li ma bëggoon lancé di wax en dernier lieu que amnistie moom du lu ñuy wax du lu ñuy xalaat jamono ji kenn bañul baale mais baale bu ñu gëstoo ba pare justice ba pare après vérité am après ñu def réconciliation donc amnistie bi nañ ko teg suuf parce que ça nous intéresse pas et ça n'intéresse pas